bésu samedi ci guddi boo ko defee mbokk mi cër bu la yàlla may day yokk looy jiite eh, da ci gën a jëm kaw responsabilité boo yorit yàlla dina la jàppale mu gën a jëm ci kaw waaye du gën a jëm ci suuf ni asamaan si kawee noon la ko yàlla du kawee mooy lahu mafi fi samawaati wa ma fi gis nga moom nag yii la yàlla def ci moom soo koy liggéey bésu àllarba ci guddi ci nombre trois cent kenn du la war koo jëf leen teel du la war kenn du la xoole bët bu ñaaw kenn du xool ci ba namm ci yow war koo jëf leen teel it la nga jëf leen teel ak moom ca commencement ba ba ba muy jeex doo ci am lu la naqari war du ci am dara lu ñaaw lu ci am. salaamaaleykum wa rahmatulah bokki jullit yi kon tey ñu indil leen ay secret yu am solo ñetti secret si ayatul kursi muy secret yoo xam ne mën na dimbali jullit si mu dund dund ko tey si àdduna ñu tànn si benn rek mooy secret boo xam ne képp koo xam ne da koy def si eh, jour biñ ko wax ginnaaw timis. yàlla dana ko dimbale ba képp kum seqal dara rek du war mukk mo xam da ko lebal moo xam dañoo sàkk business moo xam leneen lu mën di doon ak du am mukk lam si séentu rek la leen si di defal kon yu am solo la kon ñu bàyyi leen ngeen teewlu ko wasalaamaaleykum wa rahmatullah salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñu baamtuwaat ki nga xam ne kii euh, moom ayatul kursi ayatul kursi mooy chaise bu mag bi nga xam ne bii rabbu samawaati wal ard ci la nguuram gu màgg gi tegu nga dégg mu naan la wa kaana arshuhu ala maa'in yàlla kii seesam bu mag boobu nga xam ne ak nguuram gu màgg googu nga xam ne mu ko teg ci ndox kon ayatul kursi yi bamtuwaat ko mbokk mi muy dañ leen waxoon ne الله لا إله إلا هو حي القيوم لا تأخصه سنة ولا نوم سوكوي لغاية 555 سوكوي وردتي نمبر 555 ندقلوكو تبايكو خل تتولوكو نخنجريني كسلا للناس غير جلدني الله لا اله الا هو حي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم جسنا سوكي ويرد بسو الخميس تيغودي تي نمبر 555 لي ني بغا واخ يالا دنا دمبلي يزيد الايمان في القلب دنا يكون غم تي بير خول loo ñàkk ñàkk ñàkk ñàkk ñàkk mën a teewlu sa borom dinga ko teewlu ndax ngëm ngay nekk sa xol mooy tax nga mën koo teewlu gis nga nag xol nag mbokk mi bu amul ngëm cër yi dañuy lott ci liggéey ni ñu war a liggéey suñu bëggee suñu cër yi ñu yàlla jox ñi liggéeyal ci yàlla lu yàlla nangu yàlla gërëm ko nañu fexe ba xol yi d'abord ngëm gi fees ci dell ndax ngëm gi mooy volant bi nga xam ne bii mooy tourner oto bi fu ko neex ngëm gi mooy tourner cër yi fu mu ko neexee te du ko yóbbu fenn fudul fu neex yàlla kon yokkuteeg ngëm googu ci nekk ci allahu la ilaha illa huwa xayul qayumu laa taaxusuhu sinatun wala nawmun yàlla dina la ko defal waaye yemul foofu rek dinañ la dindil tayal tayal mooy lan mooy jullit bi nga xam ne bii day def saa yëpp jógee bëgg gëdd jaamu yàlla mu mel ni dafa am lu ko téye mu mel ni dafa am lu koy bës waaye mu mel ni dafa am lu koy wax naan ko bul dem laag loolu ñuy tudde stress yi ñuy def yi ñuy wax yëpp kuy farataal di liggéey allahu لا إله إلا هو حي القيوم لا تأقصه سنة ولا نوم ci nombre cinq cent cinquante cinq bésu alxames ci guddi yi ñu tudd yépp benn bu ci nekk yàlla dina la ci taxaw jàppale la ci ba nga am ko kon benn ngi noonu ci njëriñ yi nga xam ne bi moom la ayatul kursi yi ëmb te bés bu nekk ñu sopp ko muy suñu xarit di suñu kóllëre ñi di ko jëfandikoo fu ne ndekete li ñuy jëfandikoo saa su ne njëriñu kese la te nag lii ñuy tudd mooy première njëriñ bi nga xam ne bii euh, moom la ayatul kursi am ñëwaguñu ci ñaareel bi ak deuxième bi ak troisième bi ak seeguñu ci ñu bàyyi ci xel su ko defee ñu ñëw ci li ci topp muy lahu ma fi waati wa ma fi ard gis nga nit sooy xëccu yokkute wala daraja ci sa dund nga bëgg yàlla defal la ko ak foo mën a nekk ci àdduna del faratal di jëfandikoo lahu ma fi waati wa ma fi ard waaye nga di ko def ci bisu samedi ci nombre neuf cent neuf sëriñ Cheikh Tawfekh dikk na ngir tàggale leen ak seen jafe-jafe mbokk mi bu dee dangaa bëgg a seet si sa yaram am na ay jafe-jafe wala dee wala nga bëgg a seet si sa wàllum liggéey dangaa yor place baa nga sañ ci place bu bees baa nga bëgg tukki wala ki ngay bëgganteel te am yéene sa yëg mbokk bu dee dangaa bëgg a xam say sarax jokkool ak sëriñ Cheikh Tawfekh foo mën di nekk moo xam Sénégal nga nekk wala bitum réew toogal fi nga toog nga woo ko numéro téléphone am bii ñu bamtuwaat ko 909 bésu samedi ci guddi boo ko defee mbokk mi cër bu la yàlla may day yokk looy jiite eh, da ci gën jëm kaw responsabilité boo yorit yàlla dina la jàppale mu gën a jëm ci kaw waaye du gën a jëm ci suuf ni asamaan si kawee noonu la ko yàlla du kawee mooy lahu ma fi samawaati wa ma fi l ard ñu bàyyi ci xel ñetteel bi moom la ñuy ñëw muy man za alladi yashfau indahu illa bi iznihi yaalamu ma bayna aydihim wa ma xalfahum gis nga moom nag yii la yàlla def ci moom soo koy liggéey bésu àllarba ci guddi ci nombre trois cent kenn du la war koo teel du la war kenn du la xoole bët bu ñaaw kenn du xool ci ba namm ci yow wor koo jëflanteel la nga ak moom ca commencement ba ba ba muy jeex doo ci am lu la war du ci am dara lu ñaaw du ci am ndax li nga xam ne lii moo tax man am rabbu samawaati wal ardi yàlla dina dina ko teggil ca ñaar ña ko seq buñ ko yëgee ak buñ ko yëgul muy man za alladi yashfau indahu illa bi iznihi yaalamu ma bayna aydihim wa ma xalfahum 313 muy yowmal arbia i débisu arba muy laam solo lool mbokk mi gis nga ndekete seen xarit bi di sunu xarit di seen soppe di sunu soppe muy ayatul kursi منافعها لا تعد ولا تحصى انجرينم كان خمل فمو كومانسي واي كان خمل فان لا جيخي دوكو دافي ني ديلو سي تي بيتي تيغو موي ولا يحيطون بشيء من علمه آه، الا بما شاء